yàlla di julli ci mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ci jiital nag su ñaari président yi président Mouhamadul Bichri Thiam fële ca états ak président si Ndeye Fatou nga xam ne eh, jëkkëram borom këram a ngi nii toog di Seydou Dione sànq am na lu mu dugal ko sama poos yaakaar naa ku nekk mën naa ndogu ji fii suba incha allah ñoo ngi nuyu al sayid al wali ibn al wali al aarifu billah al xalifa al cheikh Mouhamadul Kabir Deme ñoo ngi koy nuyu di ko ziare cheikh Kabir moom macha allah yàgg naa wax ci moom ba nga xam ne fi mu nekk nii daanaka. su ma bëggee wax ci moom nit ñi dañuy xam sax fan laa jëm waaye ala kullim suñu waajur la suñu sëriñ la suñu doomu sëriñ la mosuñoo tànqam lu benn bés lu daayiratul bu laa xewle te mu yëg ko rek day ñëw moom naka jekk dafa moom moo daayiratul bu laa neex na ko lool wallaay te mosuma koo wax sax yàlla xam na ko eh, ñoom lay nuyu Cheikh Aliou Seydil Abidine di la ziar eh, imaam Dramé suñu imaam suñu macha allah suñu sëriñ laay wax suñu sëriñ ndax moom moo ñu jiitu ci tarixa bi jiituñu ci diine gi suñu wëllëri suñu dëkkandoo nitu alxuraan la ahlul qur'aani hum ahlullahi wa xasatuhum eh, yàlla xam na ne yëgaluma ko ko sax ndax gi ngeen gis ni amul kenn ku ma ko yëgal sax ñi ñëw baax rek wallaahi moom mu yow xëy na dégg na micro yi mu jàpp ne fii macha allah ay ay ay rakkam ak ay doomam rek ñoo fi nekk mu daal bu koy yëg si fii sëñ imaam xamal la ñoo ngi sa ginnaaw ñun say rakk lañ say taalibe lañ say say lépp lañ xamal ne lépp loo soxla si ñun rek ñun pare nañ ko yaay fii suñu kilifa yow lañ fekk si koñ bi doy nga ñu ci jikko doy nga ñu ci xam-xam ñoo ñaan yàlla yàlla bàyyi la suñu kanam Oustaz Ibrahima Thiam jóge na fii ba Mbuur ne woon naa leen bàyyi ne woon na Cheikhaani inna fatan ma alxabibi bi xaalin gayru muftarid sa soppee xaal bu ngeen di dund du ngeen soppaliku bind na ma lettre sax boobu moo ngi dem parcelle mu tombeeg bésu dimanche bi ma koy tontu ci leetar bi ma ne ko man jamaahumul waahidul ahad laa yufarriquhum yawmal ahad ñi nga xam eh, ñi ñoo xam ne al waahidul ahad moo leen boole mooy yàlla laa yufarriquhum yawmal ahad bésu dimanche man leen texe kon demoon fu la neex waaw te la demoon eh, gi tukki na bi ba Maroc macha allah léegi moo ngi muur waaye dafa mel ne tey la gën a jege ndax ñoo bokk lu ñuy dund ala laysati l ixwaan ixwaana nutfatin tasawarat fi l arxaami fi aalami l jasad walakin man ixwaanu man kaana wasfuhum yutabiqu wasfa ruuhi fi aalami l badad Baye Thiam mi sa doom la yaa ñu ko indiloon macha allah bi ñu ko indee day wax rek yàlla ñun rëccuwul li tax nga indi ko fi ndax moom mooy jëmoo xadara gi tey moom ñu jàppale lu bëri lu bëri lu bëri bëri na kuy xewle ci xadara bi man dama ko yëg sax mu dem teew ba mel ni maa nga fa yàlla ko yàlla fay am na soxna soo xam ne moom yéeg ba kaw la Seyda Mariam Sow la tudd moo ngi fii daa xewle foofu dañ ko tuddee benn jotaay mu rëy ci moom lool te ñun la am waaye mënuñu ko woon teew bàyyi caam teew fa teew fa teew bu rafet macha allah moom dafa kontaan ci teew bàyyi caam ba mel ni ñu ñëw fa teew moo ngi fii ci jotaay gi jóge ba Kaolack ñoo ngi koy nuyu di nuyu imaam Ndaga Sarr di nuyu zikarkat yi Ceerno Nazir Wan moo ngi fi ah Ahmed Nazir Wan ak ñoom Ahmed Kan waaw ah, Mubarak Wade moo ngi fi ñoom Umar Cissé Mouhamad Touré suñ njaatige ca Kaolack macha allah. Eh, yaakaar naa di waaj a dem ziare ji yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu mu dem ci jàmm lépp lu mu ko ñaan yàlla nangu Euh, Malick Konte gaa yi nga xam ne saa bu daayira bi amee soxla rek ñu ñu féete woo ko ñoo ngi fii si jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ala kulli ci kàttan nuyu naa ñëpp waaw si Abdou Ndaw nag daanaka dama bañ a wax fi moom ñu ne daanaka damay ni si Abdou Ndaw moom nit ku yéeme yéeme yéeme ngi ni am na Eh, def leen di loxo façon beral bu bu doy waar na leen xotti yére ñoom ñëpp jox leen enveloppe bu duuf ñëw encore saa bu ñëwee jox ma enveloppe man damay fàttali bu waxu Seydina Ali ibn Abi Talib bi eh, ba mu daan woy ci ñaari bayit mu tudd si ñeenti jikko ñeenti jikko yëpp gis naa ko ci oustaz Cheikh Abdou Ndaw Seydina Ali def ne ahmidu rabbi ala xisaalin xassa biha saadata rijaali لزوم صبر وخل كبر وصون عرض وبذل مال ahmed rabbi maa ngi sant yàlla man ali ibn abi talib yàlla may nam ala xisaali ci jikko yoo xam ne xasta biha saadata rijaali yàlla nga ko jagleel sang góor yàlla ñeenti jikko yoo xam ne yàlla du ko jox lu dul góor yàlla yu màgg yi ban ak ban mu soo gisee ma ne luzumi xisaalin la moo tax ma ma ma continué mu taabaa bi ba léegi mooy luzumi sabri mooy saxoog muñ wa xalqi kibri ak summi rëy rëy bi wa sawni irdin ak tamit aar protéger sa der ba du yàqu der bu set wecc wa bas limaalin ak joxe sa àll ñeenti jikko yëpp seede naa ko ci oustaz Cheikh bu Ndaw tabe naka jekk mel la ñi gën a rëy ci melo yi soo xoolee tëggkat yi même ci way arab yi depuis ci jamono jaahiliya ba ci shuara islamiina yi ba muxdaramiina yi nga dem ba ci shuaraawu bani umayata ak shuaraawu bani abbaasi andalusiina yi ba xëcc ba ñëw tey toujours suñuy tagg nit tabe moom ci lay bokk toujours waaw ndax tabe jikko la boo xam ne daanaka su ma ni jikkoo woo jikk maanaam ëmb na jikko yu bëri ci biir jikko yu rafet yi war a taggee doomu aadama moo tax qaadi wul fafa Mouhamad Abdullahi wul fafa borom xam-xam la ca Mauritanie te tamit taalibe Baay la macha allah bëri na lu muy woy Baay ci ñi gën a am xam-xamu adab ci bi Mauritanie la bokk di taxoon nag gaa yi gën a jaaxle ci Baay ñi ëppoon xam-xam ci biir Mauritanie ñu siggoon ron tànk Baay di ko tagg di ko sàdd ay bayt yoo xam ne daanaka kenn ci ñoom su wooyee bàyyi da ngay dugg ci e, shuara shuaraul jaahiliina yi ngay xool ndax kenn mos naa woy woy bu mel noonu ñun naa wax toujours yaay doo gis woy bu mel noonu ba sax achamsul balad bi léegi bi ñuy wax ni Cheikhaane woyal na ko bàyyi est lii may gis ni jant bu feeñ ci guddi la achamsul balad bi léegi paali waa saadu te fenk ci biddiwu saad saadul aswad saadul asad bokk ci manazil euh, ñaar fukk ak juróom ñett yi muqaddam farul muaxar batnul hud ak nëpp bu koy suraya dabran xaq ahan anasra tarafa simaak غفر زبنا إكليل قلب شولة أو ناعم بلد زابي بلا سور أخلية maanaam weer wi di fanaan bépp guddi ci benn biddiw ci biddiw yi mu ne jant bi dafa fenk te boobu fanaan te saadul asad ndax shamsul badat bi léegi taaliuha taaliu shams bi fi moo ngi tombeeg saadu mooy saadul asad te shamsul badat bi léegi taaliuha saadu lii may gis ni jant bi moo fenk fekkee tombeeg weer waa ngi fanaan ci manzilu saadul asad wala déedéet day laajte ata shamsul badat bi léegi taaliuha saad yow ma kaana sha'nu shams bi léegi an tabdu bokkul woon ci mbirum jant muy feeñ guddi est-ce que lii jant moo feeñ fii guddi bokk ci taalibu saadul asad te bokkul ci affaire bokkul ci aaday jant muy fenk guddi ndax jant bëccëg la daan fenk mhm. wéy bi maanaam atla bi ñu rafetee eh, nee nañ benn journaliste fële ca eh, ca saoudien dafa gis xasida mu yéen ko lool ndax li cheikhaan yi ci daaliye bi kéemtaan yàlla ci ma dafa yaakaaroon ne waa ji deena bu yàgg bokkatul ci jamono ndax ku mel ni kii waratul dund tey moo wax ak benn waaye rek ba kooku ne ko kii Mauritanie la moom Tijaan la min na soo kii nañ soo demee eh, soo demee Mauritanie ne ko gis nee nañu waa ji jaral na ko mu dagg bii si jamono boobu ñëw ba noor sa di laajte Cheikhaani ñu tegtal ko ba baray na ba mu ñëwee na ron xayma ci ni nga xamee xayma yi ca bàjjee bi eh, dafa jooy ndax borom ak samsul badr bi day tali wa sa su nekke ne mo nekke ni adduna doy waagaan moo tax xaadiwul fafa da na takk bay ci tabem di wax lisaanu hali abi ishaq qad qaala anfiq la taxsha min zil arsh iqlala mu dem wala ara mislahu ilman wala waraan wa ma raaytu lahu fi judi amsaala xaadiwul fata nee ne bàyyi lisaanu xaali ab isaq mooy làmmeñu xaalu bàyyi bàyyi fu mu toll làmmeñu xaalam moo ngi wax an fit joxeel yow ibrahim foo toll bàyyi yow joxeel wala taxsabul ragal min zil arshi te yàlla borom arshi it laa leen néew li doo musa ñàkk ba abadan loo am jox ko yàlla bàyyi nee ne lu ma am jox yàlla su ma soxlawee laaj ko loolu inna hada la risquna ma lahu min nafaadin la لا لا لا لا, لا يمتي على محمد صلى الله عليه وسلم يقول بلال يا بلال أنفق ولا تخشى من زيد عرش لا وهو هو يمتي على يمتي بلال الشيخ آه، أحمد التيجاني لا يال يمتي وهو بلال رحمة الله soo demee ci yàpp dal tan rek fekk bu wax mu ne laa meñu xaalu bàyyi nag fu mu toll moo ngi wax yow ibrahim joxeel من لا أرى مثله علما ولا ورعا واجي وقت ممشي بوبم ديسكو ملي ممتي خم خم داي يبي مم موني مسل ديسكو ملي باي تي خم خم تدور وقت جرينين تي باي خل خول كيكو وقت داك وقت دي خول كيكو وقت أمنا تي صلو فان لك راتم طول كي وقت ني ديسكو ملي ممتي خم خم أكتي مانا وي دا موريتانيا لا ما شاء الله خم خم يا دفلنا تابلي الوي بس أخ مم موي بروك أبيات يو يمالين دون وقت آه، يا شيخ مردائيا يدعو برميوي لئلا ياتي بما يشفي سدى علوي انت الذي بقرى الاضياف مشتهر والرسل افضل ما يقرا به بدعي ما هو ينبغي تويبو بلا فنيكون كولا مار نجار نجار مو زيريك من يا شيخ باي مردائيا يدعو برميوي يونيل بين واي مو برميوي لئلا ياتي بما يشفي سدى علوي ويكي جاي صوب xëy na mu indi lay wéral feebaru alal bi mooy naar boo xam ne mu ngi askanu ci alal yi nañ mu daal di teg benn bayti bu am solo nag boobu damay wax nit ñi toujours war nañ di ko def dars di ko yaatal ndax def na bàyyi yemul ci ñaan soow rek mais anta yow bàyyi anta lazi bi xiyal adiyaati mujtahim yow yaa siiwee woon teral gan nekkete junj na dugg na jóge na ci ibrahimul wilaaya bi xuus na ba dem ci ibrahimul nubuwwa ndax ki njëkk a teral gan ci kaw suuf mooy yonti yàlla al ibrahim mooy njëkk a teral gan mooy a moom mooy njëkk a jong ci a sol a a teral gan am na yu bëri ci yonti yàlla ibrahim euh, la tàmbale yàlla ne yonent bi an ittabi millata Ibrahima hanifan yonent yàlla Ibrahima mooma def daan wax laa laa laa def daan wax euh, yàlla bu yàlla def barke ci bés boo xam ne am naa ci si suba soo xam ne am naa ci gan guy xëy di ñibbi yàlla bu yàlla def barke ci guddi goo xam ne aw ma ci gan guy fanaan loolu wax la xëy na ci ci làngam moom abraniye la mais dañoo jël wax danañ ko waxee woon maanaam traduire ko en arabe ah ne. yàlla bu yàlla def barke ci suba soo xam ne damaa am gan buy xëy yàlla bu yàlla def barke ci guddi goo xam ne am naa ci gan goo aw ma ci gan ci guddi gi wala ma am gan ci guddi gi mu mu di xëy dem yan ci yàlla Ibrahima moom lañ xamee teral gan loolu lay waajib bi ñu ne ko an tëllese bi xiral adiya fi mushtahirun yow yaa siiwee teral gan yi démb moom ñuy di ñu Ibrahima nubuwati ma nga xam ne Ibrahima bële alquran def ñu ne tëri hal ataaka hadisu dayf اسكي نشیو وقت آنو گلو ابراهیمی تو زود دمای وقت وقت آنو گلو ابراهیمی استدیو نشیو آفران کو استدیو نشیو یا محمد حدیث وقت آن دایف ابراهیم گلو ابراهیم بی باینی وی میرا دایف بود و دم کوی ول بدرین گر کو حال اتراک حدیث فاید ابراهیم حال اتراک استدیک نشیو حدیث وقت آن فاید ابراهیم و فاید بیگ faydu googu nag suñ koy tudd toujours dañuy dañuy laaj dañuy laaj faydu googu suñ koy tudd toujours dañuy wax waaw lan moo lan moo wane sax ne bàyyi mooy borom faydu léegi nag dellul ci jamono bàyyi borom xam-xam yi doon dund ak bàyyi am na ci benn borom xam-xam ci biir Mauritanie Abdourahman ibn Salif la tudd lan la wax bàyyi inna naraka wa anta saahibu faydihi jaddadta min aathaarihi adrasa إنا نراك أن يتجس من يوم بخول من لسه من لسه تنتدل وأنت صاحب فيد فك يا دورم فيد مولانا سامر تجاه نيوني أي تجامة نكون تجاري قريبا باي وأنا نخول من بخول يو يا دورم فيد نعلم كي الحاج محمد زينب الحاج محمد زينب أخم خم من بوري بوب بوكر باي بين باي نحن فال تعلموا أن الإمام قد نصب ما ينفق العبادة فيدا ينسكب ala yaday wasilati tijaani barhamatin anwaari wal irfaani kon taala mu xam leen ne àndal imaama mooy cheikhu tijaani qad nasab mu ne taxawal na maa yam fawu ibaada loo xam ne day jëriñ jaam lan la cheikhu tijaani taxawal li war a jëriñ jaam bi mu ne faydan yansakib fay du guy sotteeku ba abad fan la ko sotti ala yaday wasilati tijaani ci ñaari loxo ki nga ne mooy waasila Cheikh Ahmad Tijaani mooy bàyyi barhama zin anwaay wal irfaan borom leeri borom xam yàlla yi te du la fay bi jox na ko bàyyi macha allah Seydi Mouhamadul Misri kenn ku nekk xam na ko yaakaar naa si ñi teew mu ne min acheikhi idman qad wuidna bi faydatin wa mawqidu zaaka alfaydiyati ala sidqi depuis jamono Cheikh Tidiane la ñu Cheikh Tidiane yi waxoon ne dina am lu ñëw lu tudd faydu mu ne mawqidu zaaka alfaydi mu ne pour rendez-vous boobu yaa ci ala sidqin comme que Cheikh wax na ko rek day ñëw il faut mu ñëw ala sidqin ci dëkk mu dem mu dem bare ba mu ba ba ba mosee la mos. mu ne bàyyi am daa du naa min siwaaka dahraqat qutihat wa nartaji minkum bi faydika al madada su la neexee nga ne bi fadlika al madada mu ne ñun suñ dollal ci yàlla monsieur wax de yow bàyyi ñun suñ dollal ci yàlla ci képp ku mën a doon qad qutihat yàlla dog na ko. ونرتجي منكم بفيد كلمة ذلك كيف فيد قيل أن يكون دولا تيال ما لم تجاني مسمى برم خمخم بيت نيجيريا لا تكون رحباي ما يبرم فيد ولا ديد نيل لا لا ترى شيخا سوى هو قبل لا فيد يقاس بفيده التفاق من لا لا ترى شيخا كوب سلمنا دو گيس سيري سوا كوي باي من موم گيس سون سيري سي باي ريك مي سيري كي نامور كو نا خينا فيم سين باي لوري لا مانا واخ نا باي مالي باكو Eh, waajur baay bu jigéen Seyda Asu Jànka wax yow lu tax ngay woo ngay woo Ibrahima Baay te te te te te magu daf ko def gis nag koo ko fa gis bàyyi rek nga ko a nga dem ci Seydi Ali xam nga Seydi Ali Cissé ci borom xam-xamu mi la bokk Seydi Ali Cissé nee yaa Cheikhana Baay lay waxal yaa Aba Isxaqa Sayyidana يا من له سلم الأقطاب في الطرق علل بنيك من أمواج فيدكم صفيا يكون به ريان ذا الشمق من يا شيخنا يوم سويسري يا أبا إسحاق يا أبا إسحاق لا قدرت إبراهيم لله هو يا أبا إسحاق سيدنا يو سويسرنا يا من له سلم الأقطاب يوم إذا خمي يقول يا ليدي يجي تمتي الله يا تي أسكالي يجي بقول يا ليدي من يجي في طرق جيوني ما يشتري بتجاني bàyyi ni ko waaw mu ne allim bu nay yëg ma sa doom bu nay yëg sa doom ji sa doom ji ndaw ji pour tasrir la allim bu nay yëg na nga may sa doom ji naanu ñaareel arab ñoo yor naxlu ak ëllu naan bu njëkk ak naan bu mujj min am waa ji fay di ko mu gis na fay bi mooy si sa vague faydu gi faydu sa xam-xam gi sotteeku ba mel ni vague te du jeex mayal sa doom ji mu naan ci sax yenn yekkunu bi rayanasation mati naan ngoo xam ne dafay maan ki dootu marati ba abadan ki cheikh Seydi Ali Cissé soo demee ci Cheikh Abdoulahi Diédji Ba e, moom kooku ci tarixa xaadir yàlla nekkoon e, waaye nag mar yàlla waaw bëgg yàlla mar yàlla léeg su demee ci benn sëriñ ci sëriñu tarixa xaadir yi si wa zaati la ahwa si wa zaati inna li si wa zaati la ahwa si wa zaati la ahwa woon leen ma jëmm yàlla gi ba mu dajeeg Baye Niass radiyallahu anhu ah woy na Baye xasida gu neex neex a neex a neex ba mu dajeeg Baye ba ba mu paree xasida Baye ne ko awqafanillahu wa iyyaka bayna yadayhi waqatan xaalisatan yawmal qiyaama yàlla ma yàlla taxawal maa ngi yow taxaw bu sell des nañ ci yàlla lan la wax Baye def ko ne wa saahibu faydati tij wa saahibu faydati بل أنت الختم والفيض العظيم وأنت خليفة الشيخ التجاني ووارثه فأنت له الخديم وصاحب يا ياي برم فايدة الختم التجاني يا برم فايد الشيخ أحمد التجاني قام وخون دي بل أنت الختم يا يا يو خط خاتم الختمين كي matal ñaari ماتي yi ndax ما يمتي على محمد ما yonent yàlla Muhammad waaye Cheikh Tidiane yi moom moo tax la wëlee yàlla yi ñaar ñooñu rek daa am ku leen moo tax moo tax misaal boobu euh, buñ daan joxe ñaari kaas yooyu te ngeen xëy na yàgg koo dégg mooy ba ba na ba naar bi laajam bàyyi euh, euh, cheikh cheikh yonent xam nañ ne charia la feeñee Cheikh xam nañ ne la yow lan mooy sa bàyyi nee nañ ba koy tontu. def ko ne soo amee sa ñaari kaas bii fees ndox bii fees meew mooy soow nga ma nga nga bëgg nga bëgg nga bëgg leen boole def njar mm-hmm. waaw nga bëgg boole ka ñaari kaas yi def njar mm-hmm. nan ngay def xam nga def ba bàyyi def ko ko laaj da <coughs> ngay jël ñaari kaas mooy soow meew nga boole ko ci benn kaas nga daldi siri nga naan misaal bi rafet na lool loolu lu muy fii mooy bàyyi mooy xaatimul xat may ni bàyyi moo matal la ñaar ña yoon waaye maa ngi yéeg ak xaaj Bichri yi ci avion ñoo ngi dem Nigéria ci jamono alxalifa Chama Tidiane avion bi feesul woon xaaj Bichri moo ngi toog maa ngi toog fii mu gis ma mu daal di jóg fa mu toogoon ñëw toog fa ma toog nit ku woyof la ku baax wali yàlla doomi wali ku bëgg yàlla ñuy waxtaan nag maa ngi yoroon benn agenda boo xam 2004 woon mu bindal ci yu bëri yu bëri yu bëri nag mu téye agenda am lii ko lu ma 30 minutes la mu ne ma yow li xewoon depuis 2004 ba léegi ba fi ñu toll nii ci am daadaat mooy ci xam-xam yëpp eh, tënk nga ko ci sa ci sa ci sa agenda bi. léegi nag ci la gisoon nag ma bind la wax jooju eh, ci la ma waxee nag mu ne ma wax lii nag dégg la waaye soo ko waxee ku amul dégg-dégg. day yaakaar ne kaas bu ngande gi moo gën a ngande Cheikh Tidiane yi moo gën a ngande yonent ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam te wax ju am solo la soo ko déggee da nga yaakaar ne kon ñaari kaas yi il faut nga ut kaas bi leen gën a rëy te naa bàyyi génnul rëy Cheikh Tidiane génnul rëy yonent ci Yàlla Muhammad waaye li muy firi liñ bëgg a wax rek mooy la nekkoon sa ñaari kaas yële moom lañ dajale ci kaas gi mu nekk xaatimul xatma yi waaye bàyyi dara lu dul jëm yonent ci Yàlla Muhammad bàyyi dara lu dul jëm Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ci biir lii yépp nag ñu laaj Baye est ce que Baye moom nee na moom mooy borom faydu bi ndax wax na ko Baye na waaw wa innahu bi faydi yanaalu diinu raf aliwaay Baye na wa innahu mbir mi sax pour gàttal bi faydi ci sama faydu gi yanaalu diinu lay diine gi di jotee raf aliwaay drapeau bu yëkkati ko maanaam diine gi si a yëkkati ko sax ci sama faydu gi rek la yàlla di jaaral te loolu muy dëgg li tax ma wëri ba ci kàddu yooyu yëpp mooy dayfu bi ak faydu bi rek ma ne hal ataaka hadisu dayfi Ibrahim waaye léegi su la neexee nga ne ataaka hadisu faydu Ibrahim faydu mooy waxtaan wi ci àdduna bi ak ba mën a dem <laughs> léegi nag ziyaara la pour jigéen ñi ci tënk euh, jigéen ñoom dañoo ëpp chance naka jekk parce que ñoom su nekkee ni ziyaara général bi ñëwee dañ ciy bokk si si loolu passé ñoom ñu am seen bopp Eh, ku si jàpp rek si jàpp rek waaye ziare bi seen ziare. dëgg la eh, di leen ñaanal yàlla nag ndax jamono neexul eh, dajale say xaalis yaa ngi léegi si jamono bu métti bi ci weeru koor bàyyi sa jiite di dox ñëw dajal yépp pour jox benn waay mu ñaanal la loolu dafa yombul lu jafe la. damay wax ki ñuy ziare toujours su nekkee ne ziare nga nit dañuy wax na bàyyi xel ci jikkoom pour man koo su nekkee ku jub la nga xool yoonu njub yam aw pour nga topp ci zur kulla saalihin taxnam fi ziyaaratihi wal taaxuzi darsa min axlaaqihi tuusadi mata tasafna bi awsaafin mazuri izan nil nal muraada wa husnal xaatimin abadi ñaari bayt la rek maa ko sabdoon ci lu jëm ci ziyaara bi ma ne zur kulla saalihin ziyaare ku baax ku ne ziyaare ko taxnam nga am xaniima في زيارة في زيارة غنيمة ما يقوم قوم ولتأخذ الدرس من أخلاقه جزء ولتأخذ الدرس ما في جل أي لسون من أخلاقه تجيكو يكون نجيو زيارة نخير كي نجيو زيارة خير تجيكو نحن لا تجيكو بينا كون في جل أي درس أي لسون من أخلاقه جزء يا لا يقول ولما تبتسفنا بأوصاف المزور إذن نلنا المراد وحسن الخاتم الأبدي صابون ملوين ملوين يعني فرال دي te ziare yi bëri nañ su nekkoon ne saa buñ ziare nit rek ñu daal di jël ci bi ya rafet ya def ko muy dars ñu meloo woo ko nit na muraata dinañ def suñu càkkutéef wa xusnal xaatimi abadi ak mujjanteel bu baax ca ba abadi euh, jigéen ñi nag alhamdulilahi suñ melee nii du tey mooy njëlbeen pour jigéen baax ndax yonent bi saa sallam première julli gum julli bi biñ ko faratalee julli première julli gum julli nee nee nañ première julli gum julli moom moo xadijatu woon ñoo nekkoon ndax xadijatu moo njëkk a gëm yonent yàlla Muhammad te yonent bi daan na julli ñaari rakk yi daan yonent yi di avant ñiy farataal julli xam nga depuis jamono yonent yàlla Aadama ba ci yonent yàlla Muhammad am na ñaari rakk yoo xam ne yonent yi daan nañ koy julli ba yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa yàlla di wàccee julli ci moom am na ñaari rakk yoo xam ne def ko daan julli yooyu aada yonent yàlla yépp la moo tax sax suñ wàññee julli nee nañ yooyu lañuy julli suñ wàññee julli ñaari rakk yooyu lañuy julli yonent yàlla Muhammad bi Xadija duggee ci lislaam te moo njëkk dugg ci lislaam képp ku yàlla sàkk moo xam góor la wala jigéen la comme da neen góor ñi Abu Bakri la jigéen ñi Xadijatu la ndaw ñi mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib jaam yi Zayd waaye nag dañu ne diggante Aboubacar Khadija kan mu jiitu bàyyi nee ni Khadijatu bay bay euh, yonent bi di wax zammiluni zammiluni moo nga jóge ca laaru Iraq ba Khadijatu di ko sàng mu ne boobu Aboubacar dugal ko ci lislaam kon ki njëkk a dugg ci lislaam naka njëkk mooy Seydatuna Khadijatu jigéen moo njëkk a shahid su ma yëpp jigéen moo njëkk julli ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa borom xam-xam nee nañ jigéen su nekkee xale euh, day dugal baayam àjjana ndax saa bu nekkee xale yonent ne soo yaree ñetti jigéen sax am riwaay bi ne ñaari jigéen yonent bi nee na man ak yow ci àjjana comme nii la ñu mu joxoñ baaraam mu joxoñ kon jigéen tamit su nekkee <clears throat> majeur su majeuree bu boobaa day matalal góor diineem ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam nit ki daanaka fekk takkagul jabar genn wàll diine gi na mu ne ku takk soxna nag am sa matal nga sa genn wàll diine fa yettaqillaaha fi nisfil baaqi na ragal yàlla ci beneen xaaj bi des kon jigéen su majooree day mottali góor diineem jigéen su nekkee yaay yàlla jël ajana defeñ ko ci ron tànkam aljannatu taxta aqdaamil ummahaat mm-hmm. kon jigéen maqaamam daa rëy ba may suna suwaydan بنزيان لكم من ويلكم أم أدب عربي له دي وقعود عنا بين أخشاب تشابهني فاحكم على الروح لا تحكم على الجسد وهل وصلت إلى الدنيا بلا رحم حتى تفرق بين البنت والولد إلى متى سيزل الفخر كان أبي كأنما الأم لم تحمل ولم تلد من خلاما آه، دمام اللي بنت سيدي أي بنت يدرب من faxkum ala ruuhi soo ma xoolee man jigéen bul àtte yaram bi mais faxkum ala ruuhi laa taxkum ala jasad samay àtte àtte ma ruuhu ruuxaañeetu jigéen man na raw ruuxaañeetu góor faxkum ala ruuhi laa taxkum ala jasad léeg-léeg bëri na góor yoo jigéen yoo xam ne ñoo raw góor yu bëri te daanaka bépp maqaama guy góor di yegg rek jigéen dana fa yegg lu ñaar mooy xutbaanee wala risaala mooy nubuwa ak yu mel noonu mm-hmm. waaye lu ma ne foo waxal wasalta ila dunia bi laa yow su nekkee ne da ngay teqali diggante góor ak jigéen di jël léeg-léeg góor di ko favoriser ci kaw jigéen yow bi ngay ñëw ci àdduna foo jaar waxal wasalta ila dunia bi laa rahimin est ce que yegg nga ci àdduna te jaaroo ci biir jigéen حتى تفرق بين البنت والولد ولا يتخلي جيلين رجورة جيلين كما اللي ما بيتي ما يتزولي ما سما باي نكون سما باي نكون من إلى متى سيزد الفخرك أنا عليك بكان يركني وسما باي نيلا ملون سما باي نباي سما يا نيلا ملون كأنما الأم دكما اللي يا لم تهمل الأم ولم تلد جيلون كون آه، جيلين يا كنا أما كامين كويس ودقوا نكفي jigéen ñu baax ñi daanaka duñ génn la ko jëlee ci jamono sahabiyaat yi ba ci taabi taabiina yi nga xam ne xam na fa ay jigéen yoo xam ne seen maqaama daa koy xëcc ba tey ba jigéen jamono Cheikh Tidiane ba jigéen jamono Baye macha allah ba si def nañ ci macha allah mu xaadara fële ca daaru bi tëyeen ala kulli ñoo ngi ci weeru koor te ibnu abdil bar benn borom xam-xam la nee soo doon wax ngëneelu weeru koor benn baat rek doy na hmm. mooy li yàlla wax nee ne assawmu lii wa ana ajzihi assawmu koor lii maa ko moom assawmu koor lii wa ana ajzihi man maa koy fay mboolem xeetu jaamu yàlla yi amu ci benn xeetu jaamu yàlla bu yàlla wax ne maa ko moom déedéet ak ak li muy de yàlla waxul alxajju lii julli yàlla waxul asalaatu lii julli maa ko moom maa koy fay déedéet même joxe zakat yàlla waxul ak zakatu lii wa ana aji zakat maa koy joxe man maa koy fay maa ko moom def ni assawmu lii koor maa ko moom wa ana aji bi man maay fay koor li waral loolu ixlaas gi dëxee ñu ci biir koor mën nga aj doo ixlaas mën nga julli doo ixlaas mën nga joxe zakat doo ixlaas waaye lekkoo naanoo nga tiim lekk tiim naan te yow rek ak néeg bi kenn fekkewu ko nga nga daal di wan loolu ginnaaw mooy firi ne am nga ixlaas fekk dëgg kon ixlaas boobu di feeñ ci koor gi moo tax yàlla ne assawmu lii koor man maa ko moom wana aj si bi man maa koy fekk weeru koor nag weeru màggal eh, danaa am ma ci def te